Internet yu Africa Global Express TV dal leen ak jamm ñu dik ak yeen ci li gëna fess ci xibaar yi di koy dooree ak nemmeeku gi nga xamante njital Pastef Ousmane Sonko jamono ji mu ngi koy dal di def ci diwanu ko Padoua ginnaaw bi nga xamante nak nag ci ay maire yo xamante ñu nga faré ci Pastef bokk ci coalition yewi Askan Wi ñom nak dal di nañi gagner seenu commune te waxtu bobé Ousmane Sonko dal di nay kenn ku ci nekk dem di leen séti ke ca ñëk moy ka nekk ci diwanu ko parcel Assainies japp leen nak bi la yoon ne gën tay mu nga ci diwanu ko Padoua Bulde Buldozer waaye fii ci Patte d'Oie Buldozer li ñu fi daal gis nag waral na ba loxo daal di darub gémmine ginnaaw Ousmane Sonko ba mu ñëwee nag di seet si la mairesse di Maimouna Dièye Maimouna Dièye moomee nga xamante ni moom moo gagné élection locale yi daal di nekk nag njiitu bokk moomeel bu Patte d'Oie waxtu boobee rek li ñu fi daal di gis ci ab dispositif sécuritaire li fi nekk ci ay way takk der daal nay bari loolu waxtu woowee nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay sympathisants ak militants Ousmane Sonko génnoon di ko daal di tertu jàppale seen kéem tolluwaay kattan yëkkati ay gaz lacrymogène daal di leen di gazé ginnaaw ba ñu koy def ngir daal di disperser ful bi ful bi tamit gën a ànd ak ki nga xamante ni rek moom moo di seenuk leader di Ousmane Sonko ginnaaw tertu boobee nga xamante ñu ngi ko ko doon tertu Ousmane Sonko daal di nay dem ba fa nga xamante ni moom moo di ca collectivité territoriale ba di mairie ba daal jàkkaarloo nag ak ña nga xamante ni ñoom ñoo ko doon tertu daal di yëkkati téeméeri dëgg daal koy wax ne jamono jile nag budget yi nga xamante ñu ngi koy wooteel mairie ngir ñu daal nag mën nees nañ cee def seen kéem tolluwaay kàttan def ci ay réalisation yoo xamante ne waruñu cee xaar kenn néew na wala bari na waaye lu mu ci mën a doon rek mën nañ cee liggéey loo xamante ne tey jii nag duñu ci daal di xaar kenn mu daan ne ca waxtu boobee nag bu ñu daal di jël quatre-vingt-sept pour cent yoo xamante ne dañu koy daal di jël dugal ko ci li nga xamante ne moom moo di wàllum fonctionnement mairie bi daal di bàyyi lenn ci ay réalisation yoo xamante ne waroon nañu kaa defal askan wi mu daan ne loolee moo waral ba moom sa sigi coor dafa daal di jël soixante-sept pour cent daal di koy jagleel li nga xamante ne moom moo di fonctionnement la nga xamante xamante ne nag moom moo di ay travaux publics yi a amal di des bi kaddu yooyee doon la nga xamante nag nga xamante ni ñoom bu gën a jege di hôpital bi nekk ci Patte te waxtu boobee nag nga xamante ne Ousmane Sonko daal dinay noppi ca visite ba nga xamante ne doon defal ki di maire bu Patte d'Oie Builders di Maymouna Dièye ca waxtu boobee nag daal dinañuy def porox ndolu daal di seeti ji ki nga xamanteni nak mom modi soxna walu mbacké mom mi nga xamanteni nak nag daal dinay nekk ap kilifa fi nga xamanteni mom modi ci diwaanu ko Patte d'Oie ginaaw ap centre commercial bañ ko fa daal di duppé ca waxtu bobé Ousmane Sonko nak mu nga ci biir kërëm way tak der yi daal di encercler fa nga xamanteni nak mom modi commune bu Patte d'Oie Builders nit mënul dugg nit mënul génn ñu commencé di sanni ay lacrymogène ba nga xamanteni rek askan wa daal dinañ ci jëlé ap titan kaaraange force de l'ordre yi daal di fiy fees dell waaye tamit ñi nga xamante ne rek jamono ji seenub liggéey daal dinay tagatémbe ginnaaw tukkib ne meeku gi nga xamante ne nag njiital Pastef mu ngi ko doon def lenn ci ay partisan wam ak ci wam doon seet naka la ñu toogee ak liggéey ba ana nan la ñu koy daal di doxalee